ndax su fekkoon ne xam-xam rek wala jàkkarloo mooy may nit mu gëm yàlla kon ñoom danañ gëm yàlla de waaye ñoom dem nañ ba ceeb nga bi euh, nga xam nga xam ne yonent yàlla Moussa mu ngi fa doon wax ak yàlla dégg nañ wax yàlla ji bañ ko déggee loolu loolu moo gise la kéemtaan bu mag la waaye taxu leen a gëm de lañ ca teg mooy lan lan nuumina laka xatta nara laaha jahratan loolu lañ loolu lañ ko tontu de bon xam-xam ak jàkkaarloo ak sax xataa yaqin taxute nit àgg ci njub gi nga xam ne moom la yàlla bëgg ci jaamam yi njub googu tawfiqullaahi rek moo koy may yàlla de xam-xam bu bari mayewu ko euh, jàkkaarloo mayewu ko gis ak sa bët mayewu ko ndax loolu yépp euh, kii kii euh, yahuud yahuud yi jaar nañ ci ak yonent yàlla Muusa waaye loolu yépp taxu leen a gëm yàlla gëm yàlla nangul yàlla jege yàlla loolu tawfiq bu yàlla di may jaamam la yàlla nañu ko yàlla may waaye yeneen yu yaakaar ne moo ci àggali nit ñëpp àggaliwu ci nit de ñoom la yàlla di wéy di wax ak ñoom ba tey yàlla waxoon nañu ci démb ci laaye ji ne yàlla dina am xol yoo xam ne dañoo dëgër woo koŋ dara mënu ci ñoom dara yonent mu a xol dinay dëgër ba woo koŋ ñu ne ko bu baax luñ koy fajee mu ne sikkar ak ziyaare bàmmeel yi de mu ne itam xol dana nooy yàlla wax na ci alxuraan xol dana nooy ba mel ni ba ndox muy ball ndox waaye xol itam dana dëgër a dëgër ba mel ni aw doj de bu boobaa nag bu seen xol yëpp yi see dëgër ngeen dem di leen ziyaare bàmmeel yi di bëri tudd yàlla yàlla dina ko doonal de ba tey yahud yooyu ci lañu yàlla di waxtaanal mu ne wa isa laqu nem daje nañu ñoom na feq yahud yi alladina ñaaña amanu nañu ci saxaaba yonent yi xaalu ñu ne aman naa ñun de gëm nañu buñ ta seeg naafeq yi buñ ta seeg jullit ñi di leen wax naan ñun de gëm nañ li nga xam ne moom la yàlla wàcce ci yonent yàlla muhammad mu ngi dëppoog lool li nga xam ne moo nekk ci suñ taw moo nekk ci tawraat de wa ida xalaa mais de waaye ndem dellu nañu baaduhum leen seen i la baadin jëm ci leen xaalu ñu wax ñoom seen sang yenn leen atuhaddisuunahum da ah, ngeen da ngeen solo leen dinaa fataxallaahu ci la wàcce na ko yàlla aleykum ci yéen di yu xaajjuukum ngir nañu eh, not le ngir nañu eh, xulóog yéen bi ci moom inda rabbikum fa borom seen de yéen da ngeen di dem di wax jullit ñi naan leen alquran li mu wax ci yonant moog li tawraat wax ci yonant benn la lii la tawraat wax su ko defee nag su fekkee yéen a ngi taseeg jullit ñi di leen wax loolu bon la ngeen leen di jox lay ci seen kaw ndax su fekkee ne tawraat li mu wax moom la alquran wax ñun gëmuñ tawraat bu boobaa ñun euh, euh, da ngeen ñuy teg ci place boo xam ne place bu jafe la ndax bu boobaa di ngeen leen may ñoom jullit ñi ay lay ci seen kaw yahud yi daan def loolu nag mooy yahud yi nga xam ne jànguñ dañuy dégg rek ci seen sëriñ si ñuy nettali ñu ci jaar rek di nettali ñoom tamit waaye yahud yi nga xam ne jàng nañ xam nag ñoom nëbb nañ melow yonent bi ba nga xam ne loolu ñu wax ci seen biir am yi dañoo foog ne loolu rek mooy dëgg ci yonent bi waaye nag ñi nga xam xaw nañoo sell ndax yàlla wax fa minhum man amana wa minhum man kafara bon ci yahood yahood yëpp du ñoo bon am na ci ñoom ñoo xam ne gëm nañ sell nañ am na ci ñoo xam ne itam dañoo nekk xéefar rek loolu mooy jikkooy doomu aadama ñii gëm nañ ñii weddi nañ waaye yahood itam am ci ñoom de am ci ñoom yoo gëm nañ ndax abdullah ibnu salaam ci yahud yu mag yi la bokkoon te ñi amoon xam-xam ci la bokkoon waaye terewul ba mu gisee yónnante rek moom dafa nangu gëm de ba mu ko defee nag yahud yi nag di aaye ñi nga xam ne dañuy dem di waxtaan ak jullit ñi di leen wax naan tawraat lii la wax ci yónnante dëgg la su ko defee bu boobaa nag da ngeen leen di jox awu ci seen kaw de su fekkee da ngeen ëllëg bu ngeen tasee ci kanam yàlla bu boobaa yéen a jox seen bopp lay yéen a jox yéen a leen jox lay ci seen bopp de loolu nag bu leen bu leen ko defati de afalaa taaqiluuna du tee ngeen xelu moo lu tee ngeen xelu ba xam ne di ngeen di def ak lor moo ci bàyyeekoo jëm si ci yéen waaye du benn nga nit bu ngeen ci amee de awalaa na yàlla di tontu awalaa yaalamuuna ndax dañoo xamut ñoom yéefar yooyu ak naafeq yooyu nee na allah naka yàlla yàlla mu danañu xam maa yusiruuna la danañu nëbbu ko wa maa yu'linuuna ak danañu feeñal ko de ñoom xeefar yooyu di wax wax ñoom xeefar yooyu ak naafeq yooyu di sant ne nañ nëbb li leen liñ xam ci yonent ci tawraat nañ ko nëbb liñ xam ci meloow yonent bi nañ ko nëbb liñ xam itam ne mboolem li ñu xam ne dëgg la yépp aju ci yonent tawraat wax ko yooyu yëpp buñ ko waxati de ndax foog nañ ne buñ ko nëbbee tax na mu nëbb ndax ñoom buñ ko nëbbee itam du tere yàlla moom xam na li nga xam ne moom la ñuy nëbb yàlla xam na itam li nga xam ne moom lañ feeñal de te yàlla lim xam dana ko feeñalal nit ñi moo tax mu wàcce alxuraan wax ñu si yonent melo yi nga xam ne mooy dëgg de mu ne laay ji mu ngi jàngal ne dëgg-dëgg li mën a am ci doomu aadama yépp mooy doomu aadama soobu sàkku ut lu baax ci moom ci diineem wala ci àddinaam loolu mooy jikkooy doomu aadama fii ci kaw suuf si képp koo xam ne nag soobu nga te yoonu yàlla tax laa soobu yàlla nga bëgg xam yàlla nga bëgg a jege loolu yëpp mu ngi taxaw nag ci yéene bi nga am jëmee ko ci loolu su fekkee am nga yéene bu set yàlla rek moo la soxlaal bu boobaa yàlla nga lay wax ne wala zina jaahadu fii naa dana hadiyanahum naa su fekkee nag sa pas-pas moom leneen nag ci loo xam ne wutee naag jëmme yàlla rek moom ma tax a jóg bu boobaa itam loolu ngay taseet de moo tax ñu ne sëriñ bu bon amul sëriñ bu na sax amul waaye amul yéene moo am soo jógee li ngay yéene rek loolu ngay taseet li nga jóg bi yéene ko rek ne moom ngay uti loolu ngay taseet loolu la yàlla di may su fekkee pas-pas bi wér na eh, yéene ji wér na yàlla moo la tax a jóg moo la booleeg sëriñ bii ala fokk yàlla dina la dimbale ba nga àgg ci sëriñ ba ba nga àgg ci yàlla de su fekkee nag am nga yeneen yoo xam ne mu ngi aju ci sa bakkan loolu boobaa itam yàlla dina la àggale ci loolu de yi itam loolu moo leen dal yaa ñoom itamit soobu nañ bëggoon bëgg nañ yàlla ànd nañoo ak yonent yàlla Muusa waaye gannaaw gi seen bakkan dafa dugg gaara gaara gaara gaar ba nga xam ne mu mënuñoo gis leneen du seen bakkan yi bu leen yonent yàlla Muusa waxee yàlla ñu ne ko déedéet ñun loolu doyuñu wan ñu yàlla rek arina laaha jahratan ñu ngi koy wax ngir ngir réylu rek ak déjjéeral ak yorante ak yonent yàlla Muusa waaye wax ne ëri na la e, bëgg naa gis la yàlla ñaan yàlla gis yàlla loolu ci boppam aayut ndax bu aayoon yonent yàlla Muusa du ko def ndax wax na bi arinii anzuru ilayka waaye nag ni nga koy ñaanee yéene ba nga koy ñaanee foofu lay foofu lay baaxe ak foofu lay bonee de su fekkee yéene bi mooy danga nga bëgg a jalgati yonent yàlla da nga bëgg a jalgati yonent yi rek moo la tax a jóg bu boobaa ñaan googu ngay ñaan daf lay rëbb daf lay alak doo ci jëlee li ngay su fekkee nag da koy ñaan comme ni ko suuf yaa ngi ak jullit ñi defee shawqan bëgg yàlla ngir bëgg koo gis ngir sopp ko ci kaw bunt ak toroxlu yàlla su fekkee bunt boobu nga koy ñaanee bunt boobu moom aayut waaye nag lu mën di xew mooy yàlla mënta feeñu ay soppeem fii ci àddina ndax yàlla àddina dafa xat ci yàlla dafa xat ci yàlla di fa dajee ak ay soppeem su ko defee nag yàlla ngi leen dencal gisuwaay boo xam ne dañ ko gis bu yaatu ñoom ñëpp danañ fa de fa xaj waaye àddina xaj na ngir yàlla di fi feeñu ay yaamam de ak i soppeem yahuud yi nag moom réylu ak euh, ak ak jéggi dayo rek moom lañ doon waxee ne arina allaha jahratan na allaha jahratan bon ñu yàlla rek ci jàkkarloo bon nag am am am am am xam-xam doyut am xam-xam bu bëri doyut pour àggali nit yàlla am daraja doyut pour àggali nit yàlla jàkkaarloo ak yàqin yépp doyut pour àggali nit yàlla de li àggali nit yàlla mooy mooy sóobu bu set rek jëm ci yàlla loolu moo lay may yàlla de waaye leneen lu dul loolu boo ko defee rek li nga yéene ci sa xol rek loolu ngay taseet ci sa li ngay sàkku ci sa xol rek yéene ko loolu ngay taseet de mën naa nekk nag njuuma ci sa mën naa nekk njuuma mu ne wa minhum aji nekk la ci yahud yi ummi yu na way maase ay xaam yoo xam ne xamuñ dara nit ñu jànguñ lañ tuddee nañ leen ummi yu na ndax lu tax ñu leen di tuddee ummi yu ndax dañoo nañ bàyyee ko ca seen meewi yaay rek yokkuñ ci dara moo tax ñu leen di bool ñu leen di askan ci seen yaay ummi nit koo xam ne ba mu jógee caayam sa meewu yaayam la gëj a xamee dara dara tewu ci dara tewu ko ci ño loolu mooy ummi wala ummi mooy mbooloom ñu bëri ñëpp kenn nga ci ñoom ba tey itam loolu mooy nit koo xam ne génnut nit ñi xam-xam génnut génnut nit ñi lim xam génnut lim doonu rek ci nit ñi ñu euh, mënta jàng mënta bind xamul dara mu ne kooku itam ummiyu la wala ummiyu mooy nit koo xam ne nit ku euh, am taxawaay la ku gudd am taxawaay nga xam ne fum mu fu mu nekk rek taxawaay bi guddaay bi ñu ñu daldi ko ci gisee xàmmee ko ba nga xam ne moom tamit ci loolu dina dem ba ba lim war a sàkku ci xam ak jàng loolu dana jaar digganteem ak moom ba lim war a sàkku ci xam-xam du ko du ko sàkku loolu mooy ummiyu ci waxi yaaram waaye nag li ci gën a siiw ñu koy jëfandikoo mooy nit koo xam ne mënta bind mënta jàng te mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mënta bind mënta jàng rek laa yàlla mun a xamuñu alkitaaba tawraat illaa amaaniya ndawe ay narde ñi nga xam ne jànguñ waaye boo leen gisee ñu ngi wone na ñoom ay borom xam-xam lañ dañoo jàng te xamuñ dara ci tawraat bari na nag lépp loo xam ne yàlla nga koy wax di ko di ko xayibalee yahood yi mu ngi diri seen baanaam ci kaw jullit ñi de ndax loolu mu wax ci yahood yi itam am na ci jullit ñi bari ñoo xam ne eh, defaru defar sa jëmm téye kaamil ne yaa ngi jàng ak yaa ngi jàngale te xamoo ci dara mu ne yàlla inhum a laa ya'lamuuna xamuñu alkitaaba tawraat illaa man yendare ay nar dañuy nar rek di waxal nit ñi wa inhum déet ñoom illaa yazunnuuna ndara danañu jortu ak njortu rek ñoom dañuy jortu rek di wax waaye li ñuy wax jotewu tak xam-xam dara xam-xami téere bi xam-xam bi taxawaat ci téere bi li ngay wax jotewut ak moom dara ay ay nar rek ngay duude ngir lan ngir jël ci nit ñi seeni alal ak ngir am daraja ci kaw nit ñi loolu rek moo tax ngay def loolu de fa waylun tat ak mbugal li la dina ñeel ñaaña yaktubuuna danañu nar alkitaaba téere bi aydihim ci loxo seen de ñi nga xam ne dañuy weddi weddi tawraat ba pare di di bind ay bind ne lii tawraat a ko wax di sos ay ay sos ay wax naan lii tawraat a ko wax mu ne yàlla mu ne ñooñu waylun mooy wax ci ñoom de waylun ñu ne wenn xur la ca safara ñi nga xam ne ñëpp dañooy bindee dañuy sos di duutal tawraat wala ñuy duutal alquran yàlla mun a waylu lan leen di xaar de wa waylun tat ak mbugal ah su ma yaquluna topp ñuy wax nit ñi ne leen xaasaali de min indillaahi aji tukkee ci yàlla de di duut seeni duut naan leen lii yàllaa ko wax lii yàllaa ko tëral loolu boo demee yahud yi ci lañ nekkoon waaye yahuud yi ñoom yuxarrifuuna alkalima an mawaadiihi loolu la yàlla noonu la leen yàlla melalee ne yi nga xam ne wàcce nañ ko ci ñoom dañ koy soppi tëralee ko lu leen neex ci boo demee alquran itam jullit ñi ñoom alquran doonu téere boo xam ne mën nañ cee def loolu ndax lan yàlla dafa wax ne moom moo leen wàcceel alquran inna nahnu nazzalna dikra wa inna lahu la xaafizuuna bon nag loolu yahud yi def ci seen téere yu xarifuuna al-kalima an mawaadiihi jullit ñi mënuñu ko ci alquran waaye nag ndax loolu musal na leen ci ne soppandikuwuñ ci alquran loo xam ne ñu dal di indi lu ñuy tuddee taawil gannaaw ubbi nga buntab taawil rek ñu la neex nag nga dugal ko ci ne taawil la lu bëri nit ñaa ngi koy waxal jottali nit ñi naan leen yàllaa ko wax yàlla ko wax fekk seen taawil yi bopp la ñuy wax nit ñi waxuloo waxuñoo nit ñi ci biir alquran seen taawil ak seen dégg-dégg ak li leen seen xam-xam jox loolu lañuy wax nit ñi waaye nag gannaaw alquran am na lu ñuy tuddee taawil bu ko defee nag yow sa taawil la lay wax waaye waxu la alquran te loolu mi ngi ci jullit ñi bari ba bu ko dee boo waxee ñu ne awaaw ah noonu la alquran waxee waaw ndax nii laa ko déggee nii laa ko gisee loolu nga xam ne nekkoon na ci yahood yi ba tey mi ki ci jullit ñi de ñun ñem rek yàlla mu ne fa way doon tatak mbugal lahum ñaar leen bi ma kataba da bind na ko la sos na ko la fen na ko ay ay loxo seen wa waylun te ah ah su ma yàqul mu ngi wax ne xaasal mi neen di laa yaa ji tukkee la ci yàlla di yestaru ngir nañu jaay bii ci moom sa mën a njëqal yi leen guddi aji de su ko defee nag ñiy bind ay seeni bindi bopp naan leen lii yàlla ko wax ci yàlla bàyyi ko ngir lan ngir jëndee ko àddina rek jaay seen diine jaay seen téere ngi jaay seen tawraat ci jullit ñi itam am ñoo xam ne ñu ngi def ak noonu alxuraan yépp naan leen lii yàllaa ko bind yàlla mu ne loolu ñuy def dim leen mujj ak ñoom mooy safara rek lay mujjee ak ñoom de fa way lun tatak mbugal la yàlla leen di màkkatabat la nar na ko ay di yowum ay doxo seen loolu ñuy bind ci seen loxo naan yàllaa ko wax ak mu ne tatak mbugal rek moo leen ciy fekk de wa way lun tatak mbugal la yàlla leen di maa yag subu na ci dana danañu fàggu ko ci ay xalal nag liñ ciy jëlee ci xalal yépp lim leen di indil mooy musiba yowmal xiyaamati rek da leen di indil de buñ ci amee àddina ji ñuy ut itam nañ xam ne perte bu rëy la la moo leen ciy fekk ndax perte dëgg-dëgg nekkul ci àddina ndax àddina bala cee perte fekk nit mu dee bàyyi ko fi nit ka dee bàyyi ko fi waaye perte nag qul inna alxaasirina alladina xasiru anfusahum wa ahlihim yowma alqiyaamati ala zalika huwa alxusraanu almubinu loolu mooy perte mooy perte wu dëggu de waaye perte àddina yi wax perte perte yooyu yëpp ay yu gaaraka dem ak ñëw rek la du dara waaye ñi nga xam ne nag ñi ngi jaay téere yàlla bi di ko waxee niñ bëggee ngir rekk jël ay euh, euh, àddiye ci nit ñi jël alali nit ñi ñu ñu leen di dara jaal te loolu yëpp dara du ci dëgg mu ne ñooñu nañ xam ne safaraa leen di xaal de ba nga xamee ne yonent ngi wax ak ñoom di leen waade koo leen safara ñu ne waqaalu ñu ne ñoom yahood yi lan sanaa jottiñu lan tamassana lakkatiñu annaaru safara illaa ayaaman ndare ay fan maadudatin yu de way néew ñun duñ dugg safara euh, euh, wala buñ ca duggee itam ñeent fukki fan ya suñ maam yi ya suñ maam yi jaamoon yëkk wa rek ci dañuy ci bu jeexee rek ñu génn waaye walla sax duñ dugg tagara wala duñ dugg safara xaalis loolu lañ loolu la yahood yi gis ci seen bopp ne ñoom duñ dugg safara ndax lan ndax nahnu abnaullahi wa ahibaauhu ñooy soppe yàlla ñooy ay doomi yàlla bon nag duñ dem safara su fekkee danañ dem safara itam duñ fa passé ñeent fukki guddi yi nga xam ne moom la suñ maam yi jaamu woon yëkk wa bu jeexee rek ñu jeex de loolu la loolu la yahood yi di loolu la yahood yi di wax buur ne xul waxal yow muhammad ñaa leen ne taxatum jàpp ngeen indallaahi ci yàlla ahdan kóllëre ci loolu ngeen di wax moo ndax loolu ngeen di wax yàlla leen ko waxloo am ngeen kóllëre gu mat sëkk ne loolu ngeen di wax noonu lay demee amu leen ko de falan yuxlifa laaw te xotti yàlla waa aadahu dëhalam te yàlla jox na leen ci dëhal boo xam ne loolu ngeen di wax yàlla du ko du ko du ko du euh, yàlla du ko neenal dana ko dëggal amu leen benn kóllëre la ngeen di wax tegu leen ko fenn am bàyyi taqulu ne da ngeen wax alallaay waral yàlla maa laa taalamuuna loolu xamu leen ko de wala da ngeen di dangeen di nar rek di duutal yàlla loo xam ne yàlla waxu ko te leen ci dara ah, buur ne balee anaam man ka sabaku fàggu na mu sayi atan bakkatab bokkaaleeg yàlla waa xaata tëleem ci moom xatiyaatu ay bakkaatam boobu ulaayka ñoo ñe da gaa yi asaabu naar ñooy war a mi safara hum ñoom xaaliduna way bél la ci safara soos de mu ne ñi nga xam ne ñooy dem safara mooy ñii de ñii de yàlla wax na ñooy dem safara de koo xam ne danga bokkaleek yàlla ba pare nekk ci àddina bi di ci dund rek topp sa bànneexi bakkan kooku bu dee ba ay bàkkatam léem ko mu nekk mu ne kooku bu dee safara rek la jëm de safara la jëm walladina waaye ñaaña amanu gëm nañu wa amilu te ñu jëf walladina foofu laay ko ñu la koy na ñu war mi safarahum ñoom xaaliduna wal bel la ñu ci safara sa de walladina waaye ñaaña amanu gëm nañu wa amilu te ñu jëf ñoo ñu la gaay asaabul jannati ñooy woromi aljanna hum ñoom xaaliduna way bel la ñu ci aljanna yooyu de mu ngoog yàlla ñuy jàngal ci laaya ji itam ne wax na wallazi ah, xéefar yi njëkk a wax ne xaaliduuna daf na fa ulaayika indi faa faawu sababiya maanaam di leen dugal safara yéen yéen a ko defal seen bopp yéen a ko saabal seen bopp moo leen yóbbu safara moo tax mu wax ci fa ulaayika indi faa asaabu narihum fiha xaaliduuna nga xam ne ñoo dugal seen bopp safara de waaye bi muy ñëw nag ci ñi nga xam ne dañoo dugg aljanna walladina amanu wa amilu saalihaati ulaika ashaabul jannati amut faa ndax lan ñoom du seen sababi jëf moo leen yóbbu aljanna waaye mande yàlla rek moo leen yóbbu janna yonent wax na ne laa yadxulu ahadukum jannata bi amalihi kenn ci yéen jëfam du ko dugal janna xatta anta ya rasulallah mu ne ba ci man de man suma jëf sax mu ne maa yóbbu al janna illa man taghammadahu allah bi rahmatihi dudut yalla manderek, rek motax bi muy wax mom tamit indi wut ulaik indi wut fa ndax sen dugu aljanna du sen sababi jëf yermande yalla la ak mbax ak yalla ñele nak ñom sen dugu safara ci sen jëf la ñoo def jëfi kéefar ñoo weddi yàlla li yàlla ñu def li yàlla euh, digle yépp ñu nangu ñu ñooñu bon ñoo sababal seen bopp dugg safara waa euh, ndax nit ñi ñaar rek lañ koo xam ne nangul na yàlla li yàlla santaane mi ngi ci kooku yàlla dana ko teralee ëllëg yóbbu ko aljanna kooku sàmm na boppam ak kóllëreem digganteem ak yàlla ak nit koo xam ne nag moom faalewul dara lu ko neex rek weddina gëmul yàlla yàlla du dëgg amul yonent yi waxuñu dëgg téere yi ay fen la yooyu yëpp nga dëkk ci nag ba pare topp sa bànneexu bakkan rek sa bopp rek nga gis su ko defee bu boobaa itam eh, yow yaa sànni sa bopp ku sànni sa bopp nag xam bul xam fooy dal safara ngay dal safara nag juróom-ñaari juróom-ñaari déele yëpp benn bu ci nekk gannaaw weddi nga rek benn bunt yaa nga ubbeeku di la xaar de su ko defee nag yàlla may nañu ci suñu àddina may na nañu ñaari yoon yoon yoo xam ne yoon wi falak taxamal aqabata wa ma adraka mal aqabatu wa hadaynaahu najdayni falak taxamal aqabata ñaari yoon yaa ngoo fu la neex jaaral bu la neexee nga jaar yoon wu la yóbbu aljanna bu la neexee nga jaar yoon wu la yóbbu safara loolu yépp ci sa tànn nag ci sa tànn nag bopp la nit nag lum tànn rek yàlla dina ko ci dimbale de su ko defee nag lislaam bi nga xam ne muhammad ak ak sahabaam moom lañ tànn yàlla lislaam boobu nag mu ngi koo tëggale mu ngi ko mu ko tabax ci ay toggale yoo xam ne mi ngi ci biir lislaam lislaam julli oor saraxe dem asaka yar wattandiku def lu bon wattandiku lor sa morom wattaliku lépp loo xam ne dafay ñaawal deru nit dafa yàq deru nit ci yar ko yar sa doom yaru yaru ci sa kanam ay doom yaru ci sa kanam ay kilifa say kilifa itam gën laa yokk nooy gën a yaroo ci seen kanam ñoom tamit ñu yaru ci sa kanam loolu yëpp ay jàngale yoo xam ne jàngale lislaam la yoo xam ne yow nit ki lañ ci jublu nga mel ko utuñ ci dara lu mooy ne utuñ ci lu dut nga mën a baax mën a tabax sa société am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi yar seeni njaboot ñu ngi yar seeni njaboot ci te bokku nekkuñ ci diina ji di leen aaye fenn di leen aaye lépp loo xam ne dafay indi nit jikko bu ñaaw waaye nag lañ ca jublu ñoom ñoom nañ préparé nit koo xam ne dana mën a jëflanteeg àddina bi ba mën a jëflanteeg àddina bi rek ci ay dugg duggam ak génn génnam waaye utuñ ci yàlla utuñ ci ngërmande yàlla utuñ ci dara léegi rek nit ku civilisé mën a jëflanteeg nit ñi rek ma liñ bëgg ci ñoom mën koo am loolu la seen yar di yóbbu seen yar foofu rek la yóbbu nit nag ngay mën a nekkee nit ku mën a ànd ak àddina bi dox ak moom li àddina bi laaj yépp nga jox ko ko lim li nga bëgg ci moom tamit nga jël ko ci moom loolu yar la waaye yaru liggéeyal àddina la ñële nag seen yar yaru liggéeyal àddina la waaye yaru ëllëg nag beneen dinañ ci taftaloo mooy yàlla dina la yóbbu aljanna de ndax ñii dem aljanna yépp mooy ñi nga xam ne am nañ yaru lislaam bu mat sëkk yaru lislaam nag foo ko fekk ak nu ak nu nit ñi mën a coowee ak nu nit ñi mën a yëkkati ko yarul islaam rek moo mën a defal nit nit boo xam ne nit bu civilisé la mën naa jëflanteeg nit ñépp te du mën naa te du wàññi ci diineem du wàññi ci pas-pasam dara yeneen yar yi nag moom dañ lay yar rek pour nooy jëflantee ak àddina bi nooy jëflanteeg nit ñi nooy jëflanteeg ñoom pour am seen ngërmaande nooy jëflanteeg ñoom pour am ci ñoom li nga bëgg loolu rek la loolu moo yaree àddina bi niroowuñ yar boo xam ne da nga ci gañe àddina gañe àllaaxira ndax nit ku civilisé mooy dugg aljanna nit ñu dof ñii duñ dugg aljanna de ndax eh, ndax yar bi lay eh, lislaam yar moo gën a kawe mbooleem yar boo xam ne ci nga àggee fu nekk waa ndax alquran boo demee yar rek yar nit ki moo ko tax a jóg waa maaman xaafa maqaama rabbihi wa naha nafsa anil hawa xam nga nit koo xam ne topp bakkanam lu ko bakkanam digal ci lu lu koy suufeel mu mooy bakkan ba xeex ak moom ba noot bakkanam nit ku noot bakkanam rek àgg na ci yaru foo xam ne keneen ku nootul bakkanam du fa àgg ci yaru de loolu nag moo tax a jóg lislaam moo tax a jóg mazahib yi jóg yépp mazahib yi suuf suufiyanke yeeg philosophie yépp naka la ñuy àggee ba yar nit yar boo xam ne moo dëppoo ak nit ku kawe kooku nga xam ne yàlla nee na maa la bind ci sama loxo koo xam ne yàlla bind na la nga jóge ci loxo yàlla nag ba pare nag te bàyyiwu la yónnee la ay yónnant yónnee la ay téere yónnee la ay borom xam-xam ñu lay leeralal kooku wàcco wàccoo na ak yow mi ngi des nag yow nit ki ci kaw suuf nag ñi ngay dundee lépp noo dundee ci kaw suuf lu la yàqal rek yow yaa ko yàqal sa bopp waaye yàlla moom li nga li eh, li mu warloo digganteem ak yow yépp defal na la ko may na la lépp loo xam ne loo yaakaar ci sa àddina bi la ak loo yaakaarul li gën a rëy ci may gi su fekkee ci nitu kese kese la mooy mal na may na ko xel de waaye ni dëgg-dëgg may gi gën a rëy ci nit mooy yàlla may ko mu gëm yàlla yàlla may ko mu gëm yàlla de loolu mooy may gi gën a kawe ndax mooy mag mag goo xam may goo xam ne du du du du jeex mukk la àddina te dafay jëriñ ci àddina jëriñ ci àllaaxira rek mu ne ulaayika ñooñu la gaay astaabul jannati ñooy war a mel aljanna hum ñoom xaaliduuna way bel lañu ci aljanna yooyeel de waskur jàngatal isa xas ak bani israila ca tawraat ne lu e, liñ liñ ak ñoom mooy lan an laa taabudu laa taabuduuna bu leen jaamu illa allah ndara yàlla li ma ko lërante wa ñoog mooy mooy loolu bu leen jaamu kenn ku dul yàlla ndax kenn ku dul yàlla xelloo doomu aadama di ko jaamu de waa bil ni ak rafetal jëm ci ñaari wàjjur ihsaanan ak rafetal de su ko defee nag yàlla wax na dénk yahud yi ca seen jamono ne leen ba ci jamono yi léegi yépp ndax li muy wax ak yahud yi rek ñooy ahlul kitaab moom lay wax ak ahlul kitaab yépp mu ne lu mu jaayanteeg ñoom na ngeen wéetali yàlla ak jaamu bu leen ko bokkaaleek dara yàlla kenn la moo leen bind moo am ni ngeen ko ni ngeen ko xamee su ko defee nag lu ci topp mooy na ngeen éwénal jëm ci seen ay waajur na ngeen bëgg seeni waajur ndax lu nekk yàlla moo ko amal yàlla moo bind moo amal lu nekk yow jaam bi ci yàlla nga amee waaye sa sababu nekk fii ci àddina nag mu ngi bàyyee ko ci sa ñaari waajur su ko defee ba ñoom ñoom ñaar ñooy sa bunt yi nga xam ne yàlla ubbi na leen ngir nga àgg ci ngëneel fépp foo mën a àgg de ci ni nga mel say ñaari waajur noonu ngay bindee sa taarix bi ñëw si ëllëg de su fekkee yaru nga ci ñoom bëgg nga leen jox nga leen seen cër yàlla yaa ngi bindal sa bopp ëllëg yoo xam ne ëllëg yu barke la su fekkee nag faalewu ma la nangam ak nangam maa la gën a bëri wax maa la gën a sañ-sañ lu la neex nga wax ko say waajur bu boobaa itam yaa ngi bindal sa bopp ne yaa ngi jëm ci toroxtaane rek toroxtaane jooju mën na laa yóbbu ba safara ndax lan ndax yàlla dafa wax ne waabudullaha wa bil walidayni ni nga xamee ne yàlla yëkkati na boppam kawe tegu ca keneen lu dul walidayni na nga fonk say wàjjur soo leen fonkee yaa ngi bindal sa bopp taarix boo xam ne taarix bu kawe la soo leen suufeelee da nga xam ne foofu nga leen suufeel rek yow tamit foofu nga jëm de loolu ngay bindal sa bopp rek bu ko defee nag wàjjur nag dañoo am ñaari yëf yoo xam ne ndey ak baay ndey yaay ak yaay ak yaay ak baay la yaay mus naa xuloo baay mus naa xuloo ak jëkkëram ak jabaram ci doomam ne ko sama doom la mu ne ko man la sama doom man la sama doom de mu ne ko sama doom la ndax man maa la ko njëkk a biir biir naa ko lu yàgg ci sama ndigg li te eh, eh, door koo wasin waaye ji ne ko wax nga dëgg de yaa ko njëkk biir waaye ba nga ko biiree yëgoo ci benn problème man mi ko biir beneen biir bi feebar ba waxtu wu nekk mën naa dee yow ba nga ko biir ba nga koy wasin ci bànneex nga ko wasinee man bi ma koy wasin tuuti ma dee sama bakkan des ci xaadi bi ne ko wax nga dëgg de nee yàlla yónnante séddale na nag xàqi yaay ak baay ñetti ñetti xaaj nit nee na yónnante sama teranga ku ci gën a ay su may wàjjur mu ne ko sa yaay mu ne ko ak kan mu ne ko ak sa yaay mu ne ko ak kan mu ne ko ak sa baay bon séddale na ko ñett ñaar yi mu jox ko yaay benn bi mu jox ko baay ndax itam yaay jar na loolu ndax koo xam ne lu fi nga jaar fi mu jaar ak yow ba génn la benn benn moment bu nekk mën na cee dee mën na cee ñàkk ba kanam ba biir mën na cee ñàkk ba kanam biiree ci biir bi ba mu lay mën na cee ñàkk ba kanam bés ba mu lay mën na cee ñàkk ba loolu yépp mu toggoo ko ndax yow bon nag am na ci yow àq joo xam ne keneen ku dul yow amu ko ci moom bu ko defee nag sa àqi bàyyi ñëw itam ndax itam loolu yépp bala see sa yaay jaar itam bu taxutoo nag sa bàyyi sonn ba indi sa yaay ci kër gi bon itam loolu du am moo koy sonnal moo koy dundal moo koy amee lépp ay soxlaam yépp taxawal ko ndax mu mën a nekk nekkin boo xam ne dina mën a def loolu bon ni tamit ñoom ñaar yépp ay nit la moo tax yàlla wax na ñetti yëf ñetti yëf booy jaamu yàlla boo ci tàggaleeg moromam rek yàlla du nangu jaamu ga yàlla wax na wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsaanan su ne damay jaamu yàlla ba pare nu neex lay nekk ak sama ay wàjjur faalewu ma leen na nga xam sa jaamu yàlla googu yàlla du ko nangu del julli junne ràkka oral jamono yépp waaye nag ñàkk teggin say wàjjur loolu moom mooy sa julli ga sa ñaan ga sa yépp yàlla nanguwu ko de ndax yàlla dafa tëkkale dafa tënkale topp ko ewenal jëm ci ñaari wajju wa abudullaha wa bil walidayni ihsana naka nonu itam amna lo xamne itam yàlla daf ko tëkkale ken mu leen a tàggale mu ne wa aqimu salata wa atu zakata dañ leena tekkale su fekkone yaangi yaangi am alal ju bëre bëre bari yaangi am lu gëna bari ci alal ba pare tanango gene asaka bon sa julli gi yafi daka julli bon sa julli gi amul njëriñ ndax tàggale nga ñaar yoo xam ne yàlla daf leen a boole Seydina Babacar Saddiq bi nga xam ne yonent génn na àddina ñoom xeefar yi ñoom arab yi dañoo daje ne dootuñ joxe asaka ma Seydina Babacar ne mukk danañ joxe ba danañ joxe asaka de pare pare pour xeex ak ñoom ba ba mu ko defee Omar ibnu Xataab gisutoon li Babacar gisoon Omar ibnu Xataab ñoom ci Seydina Babacar ne ko Babacar يونت دفا وخنا امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فان قالوها اسموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها بونك نيت ني ورول برو برو خخ اك نيوم تي نيوم نيب نيغي گم يالا نيغي نيغي گم يالا دي منوكو عمر توبل فلي بيغا نيكي هيفر گنا دون جولي دا غاي ديلو گناو مبرتو جان جوخ يونت مكو ايه دانا خخ اك نيوم دانا خخ اك نيوم دالدي گيس kii daal taxawaayam bu dëgër bii daal am na ci lu ko wóor dal di dal dal ak moom de ba ko defee su fekkoon ne Babacar taxawutoon taxawaay bu dëggu ngir asaka bu ko nit ñi faas ci diine ni ko nit ñi faas nañ ko bu yàgg bu ñu faasee benn rek beneen ñëw di faas di faas ba mu jeex tàkk waaye Babacar moo taxaw de moo tax Omar ibnu Xattaab di wax naan jigéen jurul doom ju mel ni Babacar gannaaw yonent yi doom ju gën Babacar jigéen jurul ko de mu ne bu ko defee nag wabil baali day neex saanan wasil xurbe ak waroomi jege ñaale ya waroomi jege ñaale yi say mm, say mag say rakk say doomi bay tax say dëkkandoo ñoom ñépp nga rafetal jëm ci ñoom ndax boo rafetalee jëm ci ñoom mooy yaa ngi ba tey jëm ci sa ay wàjjur de wal yata boo defee loolu ba pare nag wal yataama nga rafetal jëm ci miskin yi miskin jirim yi jirim mooy koo xam ne baayam dee na fekk nda fekk géntagul muy góor muy jigéen yonentu nee na ana wa kaafilul yatiimi hakaza fil jannati nit koo xam ne yar na yatiim ci këram ba màgg ba mata am jabar nga nga may ko jabar yonentu mu ne yaag mom yéen a sen ni seen kër yi ñoo mel ci aljanna mu ne bu ko defee nag war nañoo xam baaraam yonent bi ni meloon baaraam yonent bi melut ni suñu baaraam yi ñun yonent baram bi moo sut baaraam bii topp ci baaraam bii topp ci baram bi top ci de waaye melut ni suñ baram yi mel de amul baram digg baram bii moo sut bii topp ci bii topp ci loolu mooy yonent yàlla Muhammad mooy mooy baram yi de mu ne nak, ki nga xam ne dafay yar jirim këram ba mu mat am jabar mu may ko jabar mu ne ñoom ñaar yonent mu ne mo koku, ñooy dend kër ca aljanna bon yar yar yeti dimbale yetim baax na de wal mu ne bokk na ci yi nga xam dañ koy nettali ci diggante waajur ak ak ak ak ak ak doomam ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa am na benn waay bu nga xam ne ci saxaaba yi moo fi dàq julli lépp luy baax rek moo ko moo ko dàq def waaye ba muy dem bay dee ñu sa ñu ñu sa ko baati seede yi mënu ko wax waxal laa ilaaha illallaah mënu koo wax waxal laa ilaaha illallaah mënu koo wax yonent ne ah, lu xew daawut julli ñu ne ko moo fi dàq julli daawut saraxe moo fi dàq saraxe daawut oor moo fi dàq oor mu ne lu xew nag ñu ne ko ah ku bonoon ci yaayam la nag daf ko daan dóor dóor na ko sax ba patt ba tëmbi de mu ne ana yaayam mu ngi dund ñu ne mi ngi dund de mu ne oo leen ko mu ñëw ñu oo yaay ji mu ñëw yonent ne ko kii sa doom la te mi ngi dee ba ah, nga baal ko li mu da def mu ne ko man kii maa jur dóor ma dóor ma ba gis ne sama bët bi moo ko patt kii duma ko baal mukk yonent ne ko dafay dee dem safara di mu ne moom caag da dem safara su ma yoon nekku ci yonent ne dem leen taxanal ma matt ñu dem taxan taxan matt mu bari indi mu ne taal leen ñu taal mu ne jël leen xale bi sànni ci safara si yaay ji ne ko lan man damaa jur sama doom fu di ko sànni safara mu ne ko ah safara la jëm rek bon nag na dem léegi rek baal ko mu ne baal naa ko xale bi ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah bon nag noonu mooy mooy wàjjur mooy mooy ndey ci doom doom ju bëgg barke tànk yaayam a ngoo dégg ngeen xale démb bi mbaax ci yaayam rek moo ko àggali foofu nga xam ne àgg na fa mu ne waqulu wax leen li naasiyal nit ñi nit ñépp amut xéefar amut jullit nit ñi rek la wax xusnan wax ju rafet wax ju ñu xam ci yoon bu ngeen di wax ak nit ñi wax leen wax yoo xam ne wax yu teg yi nu la wax yu yaru la wax yu nit mën a dégg mën koo nangu la boo ko defee ak nit rek da nga gis ne jël nga ci moom loo xam ne leneen lu dul teraanga nu ko jël ci moom de nit boo ko waxee sa mbub mi rafet na sax wax nga ko lu ko neex danga ko def ci bakkanam loo xam ne neex nga ko de waaye lu nekk rek am naa nu ma ko saytee am naa nu ma ko sabotee loolu d'accord ci dund la bokk waaye du mooy dund bi nga xam ne mooy tabax mooy tabax àddina mooy defar àddina de waaqimu taxawee leen astraat julli juróom waatu joxe leen zakata asakaay alal seen de seen alal bu ngeen ko amee na ngeen ci génn asaka de loolu yëpp yàlla santoon na ko yahood yi kóllëre te ñoom ne nañ ko def su ma taw laytum topp ñu dëdd ñu daal di koy sànni faarewu ko toppuñ ko de illaa qalilan yi néew minkum ci yéen ñu dul ci yéen ñu néew ñoo xam ne topp nañ li nga xam ne kóllëre woon nañ ko ak yàlla de wantum tayeen mu war a duna way dëdd ngeen nanguwu leen loolu nga xam ne joxantewoon ngeen koog yàlla ca seen jamono ay bàyyi da ak seen i maam waskur jàngatal isaxas na ba ñu jàppee mi saako ko may ko seen fàttaliku leen yéen yoxoo di ba tey itam ba nga xam ne ñu ngi jàppanteeg yéen ay kóllëre man yàlla maa ngi jàppanteeg yéen ay kóllëre kóllëre yi moo doon lan la na bu leen tuur dimaakum ay deret seen bu leen tuur seeni deret boo tuur say deret mooy boo bëggee boo bëggee tuur dereti jàmbur moom itamit dana défendre boppam pour tuur sa deret bon nag boo tuuree dereti jàmbur rek mooy ne tuur nga sa deret ndax moom itam dina fayeeku dina jéem a fayeeku de nit loo ko bëgg a def rek bu mënee fayeeku dafay fayeeku bu waa nag bon la nga xam ne yaa ko bëggoon a def mu fayeeku dafa mel ni yaa ko def sa bopp ndax boo ko ko bëggutoon a def moom itam du loo ko bugg a def bon nag bu fekkee yaa ngi tuur bu moo tax yàlla ne leen laa taqtul laa na bu leen tuur dimaakum ay deret seen mooy bu leen tuur dereti yàmbur de ndax bu ngeen tuuree dereti yàmbur ñoom itam dinañ tuur seen deret de wala tuxrijuuna bu leen génneen su ko may bopp seen min diyarikum tukkee ci ay kër seen de te itam bu leen génne seen bopp ci seen kër yi ba tey mooy loolu rek nit boo ko bëggee génne këram moom itam mu bëgg laa génne sa kër de ba yàlla waxanteeg loolu ci yéen su ma maaqarartum topp ngeen nangu ko wa antum te yéen tashaduna da ngeen seede waral seen bopp ne nangu woon ngeen loolu yàlla waxante woon ak yéen de su ma antum topp yéen haawulaay yéen ñile taqtuluna da ngeen rey anfusakum may bakkan seen wa tuxrajuna te ngeen di génne fariqan kuré minkum ci yéen min diyaarihim ñu tukkee ci ay bët seen ci ay kët seen te zaaharuna da ngeen dimbalante alayhim ci ñoom bil ismi ci bàkkaat wala udwaani ak tooñ de ñaari jiiti yahud banu xurayzata ak bënu nadir bu yàgg dañoo gàddaay ñëw madina ndax jàng nañ ci seen téere yi ne yonent bi mujj ñëw ci àddina madina lay nekk ba mu ko defee banu nadir ak banu Ah. ña ñaari ñaari ñaari kuréel yooyu ah. banu Quraysata ak banu Nadir ñëw Madinatul Munawara ngir xaar yonentu boobu di ñëw ba ñuy ñëw nag fekk ca Makka ca Madina ñaari jiitu yaaram ñoo ko dëkk ñu leen di wax al awsu ak xasraj awsu ak xasraj ñaari giid lañ yoo xam ne ñoo dëkkoon Madina xeex nañ lu mat téeméeri at xeex boo xam ne du dakk mukk ba bi yonent ñëwee ñu tuub ne ànd ak yonent ñu far leen tuddee lansaar ñoom ñooy lansaar ñooy aws ak xasraj ba nga xamee ne nag banu nadir ah, ah, banu nadir ak Qurayza te ñëw nañ ba ñëwee kenn ku nekk ci ñoom ñaar ànd ak benn kuré ca kuré yaaram yooya ñii ànd ak aws ñii ànd ak xasraj boo boo boo xamee ne nag ba nu nadir ba xasraj ak aws aws ak xasraj yu ngi xeex ku ci nekk nag danga jàppale kuré ba nga xam ne moom nga gëñoo gëñoo wante ndax bi ñëwee ñii dañoo gëñoo banu nadir ñii gëñoo banu nadir dañoo gëñoo ak aws ñële gëñoo ak xasraj su ko defee xasraj ak aws bu ñuy xeex ala fokk ñii ñëw gëñoo ñoom dañ leen dimbale xeex seen moromi yahud yële su ko defee bu ñu leen xeexee dana am rey dana am lu nekk su ko defee nag di leen yàlla doon aaye dugg nañ ci ndax ñu ngi rey seen mbokk ñu ngi rey seen bopp su defee nag liñ dese su fekkee banu nadir su fekkee aw sa xeex nañ ñu groupe jàpp ñu jàpp dara ci yahud yi boo xam ne àndoon nag beneen parti ba <coughs> su ñëwee yahud yi ci seen bopp ñoo leen di jot bàyyi leen ñu ñibbi yahud yi nekk ci parti bi ñoo leen di jot bàyyi leen ñu ñibbi ba mu ko defee nag ñu laaj leen ne leen waa yéen lu xew bu yahud yi ñëwee ci yéen bu ñu leen jàppee ngeen leen di jot ba pare tey xeex ak ñoom lu tax loolu ñu ne mënuñoo ñàkk yo eh, tawraat moo ñu sant ne nañ jot nañ def lii ku jàpp ci ñun bu ñu ko mënee dimbale nañ ko dimbale loolu tawraat moo ñu ko sant moo tax yahud bu ñu jàpp bu ñu ko indee ci ñun danañ ko dimbale ngir jot ko am maa bi nag ñu ñaar ñuy xeexante loolu suñ niñ gëñantee moo ko def ñun gëñoo nañoo xabila bi ñii gëñoo nañoo xabila bi ñaari xabila bi bu ñu jotee di xeex xeex ala fokk ñu dimbale leen de ndax xabila bu gañe sa morom rek ñun ñu torox te toroxtaane boobu lañuy bañ de moo tax ñu leen di dimbal moo tax ñuy dimbalante ci loolu de xare bi mënta ñàkk ndax dañoo xas gëñoo ay nit waaye nag jot gi moom loolu moom mënta ñàkk ndax ñoo ko xas waxante ak yàlla de bu ñu fa fële ñuy jot leen bu ñu jàppee fii ñuy jot leen de yàlla ne leen afa tuuminuuna ndax da ngeen gëm waa xim waatu zakata su ma toolee tum topp ngeen dëdd illaa leen dawee yi néew minkum ci yéen wa antum yéen mu'riduna way dëdd ngeen de waaye boo su ko jàngatal li sax na ba ñu jàqee mi sàq ku may seen te ñu wax leen ne laa tasfiku bu leen tuur dimaakum ay dere seen wala tuxrijuuna bu leen génneen fusakum bopp seen min diyaarikum ngeen tukkee ci ay kër seen de bu kenn ci yéen génn kenn ci këram de su ma aqrartum topp ngeen nangu woontum te yéen tashhaduuna da ngeen seede waral seen bopp na nangu na nangu ngeen ngeen loolu de su ma antum topp na ko yéen haawulaay yéen ñi de taqtuluuna da ngeen rey anfusakum bopp seen ndax yéen a ngi rey yenn ci yéen ñu ngi rey ñenn ñi de wa tuxrijuuna te ngeen di génne fariqan kuré minkum ci yéen mu di yàlla yi tukkee ci ay kër seen te zaaharuuna da ngeen dimbalante aleyhim ci ñoom